opposition le président Macky Sall woote woon na dialogue ñun ñëpp ñu participer woon ci jaloog bi à son temps ma jàpp ne nit ku bëggal réewam jàmm di doxal jàmm di teg dëgg di ko fësal saa su ne moo waral mu woote jaloog bi parce que ñu jàpp ne ab réew kenn du ko pàccoo mais dañ koy péncoo mais péncoo bi dëgg moo ko war waralal parce que bépp discussion boo gis sincérité ak honnêteté moo ko war a lal lu ko wéy rek day naxasaay bu ñu demee tey ba si magistère am loolu ala ala yowén war nañ ko ko nangul si la pétrole génn gaz génn te pourtant day bi ñuy fal moom la askanu Sénégal wóolu su ko neexoon doxal bu paree après rendre compte à la population sénégalaise mais dafa ne bu pétrole bi génnee gaz bi génn lépp lu ñu mën a def muy soppi doxalinu Sénégal dañuy woo doomu ndaw ñi nga xamante ne conscient nañu pour l'avenir du Sénégal ñu toog discuter waxtaan xool naka nañ koy ficelee doomu Sénégal yëpp gis seen bopp parce que loolu lay doxal di ko fësal saa su mais yan point ñoo la marqué tey ci ci dialogue politique bi parce que tey euh, gis nañu fa personnalité politique yu bari yoo xam ne euh, nekkoon nañu en rupture de banc total euh, avec président Macky Sall ñu ñëw wuyu si lan moo la ci marqué lan nga ci doon xaar loo gisul wala lan nga ci gis lu lu weesu sa njox non dama jàpp ne ñi gëm Sénégal bëgg askan gi fonk askan gi xam nañ ne si waxtaan si lépp euh, di sottee nit danga nekk sax njiit sa biir kër yor sa soxna ngeen réeroo ay nit ñëw ngeen juboo trouver solution ma jàpp ne tey ñi fa toogoon ay patriote lañu ñi fa toogoon Sénégal leen tax a jóg ñi fa toogoon Sénégal moo leen ñor ñi fa toogoon jàmm réew mi leen tax a jóg ma jàpp ne nag après bu ñu fa nekk lu ñu jàppante jàppante jàppante bu intérêt nation bi taxawee ñëpp war nañ si mën a gis seen bopp. moo waral ña fa teewoon ñëpp bëgg Sénégal ña fa teewoon ñooy sàkku jàmm ña fa teewoon yëpp ñoo bëgg ñu doxal ngir lépp lu ñuy laal mu nekk une très bonne transparence. donc su ma la déggee ku teewul ci dialogue politique bi doo patriote. bëggoo Sénégal soxna si xam nga nag un dialogue n'est pas du lu ñu war a lu président Macky Sall war a def par force la mais c'est une faveur ñu nangu ko moo ñu bañ ko nangu moo ne. waaye nag mënuñu nangu ñu taxaw. dialoguer avec son peuple avec les forces vives de la nation c'est un c'est une faveur que le président de la République fait au Sénégalais. mais c'est pas un droit parce que moom la ñu fal c'est lui qui a élu par le peuple. mu foog ne ndax réew kenn du ko comme le dit Momar Samb kenn du ko. Euh, pàcco dañu koy dañu koy pénco mais moom laa wax léegi est du responsabilité président de la république loolu day neex fu mu toog muy waxtaan ak njaboot bi di diisoog ñoom ñu ànd ak ñoom ñu ñàkk a ànd ak ñoom mais qui est le garant de la c'est le président Macky Sall te du loo xamante ne tey la ko commencé def na ko démb tey soog a ñëw xanaa kay li bu doon tey la mais amoon na fi démb ak barki